nationale. toujours les honneurs militaires qui sont rendus au président, son ex culmine, les emblèmes du Sénégal qui culminent au sommet, euh, le baobab, euh, le lion, euh, tout un symbole, euh, des symboles qui seront désormais Euh, fièrement gardé euh, par le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec son collier de grand commandeur et son écharpe de grand croix il va rejoindre le chef de l'État euh, Macky Sall euh, ñu fas yéene saafonte les deux hommes se sont déjà rencontrés le protocole ñu ngi koy expliquer Euh, la tradition républicaine euh, bi nga xam ne nag moom moo sous-tendre euh, cette ce dernier acte alors Bassirou Diomaye Diakhar Faye nouveau président de la République du Sénégal Macky Sall euh, ancien désormais ancien président de la République euh, du Sénégal euh, y a quand une une une une une complicité une entente bienveillante. Mmh. entre Macky Sall ak ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye. da da Sall dafa mel ni ku ko ku ko ñeewantal ku am empathie. ci ci mm. moom euh, remarqué nañ ko sax lors de leur première rencontre voilà. man kay euh, may mun a bu dee mm-hmm. euh, bi ñu nuyoontee Palais boo xoolee ci wolof la ñu saafontee Bassirou nee na ko naka yaram wi. mu ne ko mm-hmm. maa ngi sant yàlla. mu ñëwoon nuyonteeg Ousmane ne ko Ousmane Ousmane ne ko président ñu saafonte ci wolof mu ne ko na ko yaram mu ne ko maa ngi sant yàlla ñooñu ñu dul wax wala euh, ñu ñoo xamante ne daal kenn ku nekk gëj naa am ci moroom ay nouvelles doo jëlee doo jëlee sa moroom noonu température bi xaw ma est-ce que en fait je en fait je me fais comprendre donc <laughs> waaw ñaar ñoo xamante ne daal gëj nañu wax yaakaaruma ne danañ gisante ba kenn ko nekk di jëlee noonu température ci sa morom. voilà da ngay sentir ce jour là et puis euh, gis ci Bassirou beaucoup de beaucoup respect. waaw euh, beaucoup de bienveillance ah, bien et puis Sall mm-hmm. euh, delloo ko ko euh, donc Bassirou Diomaye était déjà venu ici mm -hmm. euh, là il rejoint mm-hmm. pour un entretien mm-hmm. et puis il est Euh, on dirait qu'il euh, est déchargé relax euh, l'air l'air décontracté <laughs> daanaka loolu la wax na jam ñaay ah. dafa en fait jam ñaay wax na ne presque moom dafa doy ci affaire bi ah il a presque dit à psychologiquement préparé à passer le témoin mm. et à peut-être inaugurer une nouvelle ère dans mm. sa vie familiale dans sa vie euh, politique dans sa vie euh, professionnelle on n'aura pas l'occasion yooyu euh, bi ah vous alors euh, voilà. de la station présidentielle comme le disait l'autre et que. on n'aura pas euh, hmm. la yem de après jeex fii la fii la yem et je pense que en dernier lieu. Hmm. c'est, le dernier acte. après bu ñu paree nag ils vont parler des dossiers du Sénégal en profondeur président wax ko ay mbóot yu am am solo ci dëkk bi. yu ama am solo yoo xamante ne c'est pas partagé waaw yu ama am solo ci dëkk bi ci économie fan lañ ko fekk ci sécurité surtout sécurité. la question sécuritaire waaw Macky Sall moom xawoon ci li muy juum mais sécurité moom lu ko fonkoon la. fonk sécurité la. et heureusement heureusement que Macky Sall était déjà préparé. Mm-hmm. à la gestion d'un État. Mm-hmm. ah mais de l'Intérieur parce que dund nañu. voilà mm. dund nañu situation boo xam ne entre deux mille vingt et vingt quatre si si on n'avait pas un état fort mm-hmm. si on n'avait pas un état debout euh, le Sénégal aurait sombré mm -hmm. ça c'est euh, yu jànkoonteel loolu li Sénégal jànkoonteel ba pare ñu génn si taxawaat je pense que vont se retirer là ils vont se retirer et puis on retrouvera peut-être et ce sera la dernière scène quand le président euh, sortira euh, de cette du palais euh, de cette ah. de ce de ce de ce scénario voilà ils sont, je pense que c'est le véhicule du président moom voilà euh, quel quel véhicule il va emprunter pour euh, Après, rejoindre son domicile ou passer par l'aéroport mm. euh, Léopold Sédar Senghor mm. donc en attendant mm. en attendant. Euh...